mbooloo mi dañoo sos kuréel jaare la ko ci benn application dëppee ko e club house ay taalibey murit lañ yoo xam ne dañoo nekk ci Sénégal ak ci bitim réew daan ci waxtaan di ci liggéeyal sëriñ bi tey jii nag ci dimanche ji dëppook 21 mars 2021 ñu ñëwoon doon ziara ziar boobu nag ñu dooree ko ci kër xalifa général des Baye Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall indi fa addiya joo xam ne xayma nañ ko ci ñaar fukki bëy benn nag ak juróomi tonu ciment ngir barkeeloo ko ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci yeesalaat kër Serigne Cheikh Jëmb Fall gi ñoom nag bi ñu agsee saafonte nañ ak mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci kër gi ci diggante bi ñu wàccewaale mbooleem addiya ji nga xam ne moom lañ indi bi sëriñ bi ubbee ñu ànd ak sëriñ Mëgëy ñëw ci sëriñ Cheikh Jëmb faal ginnaaw bi ñu ko ziyaaree ba noppi daal di koy leeral lépp lu jëm ci liggéey bi. Fall noo ngi lay ziar bu baax di la ñaanal ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall nga ba li nga bëgg ci liggéeyam maam Cheikh Ibrahima Fall bi yëpp nga def ko nu kawe sa njort waaye nga ànd koog nun taalibe yi te loo woote yàlla bu ñu ci kenn mën ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Fall mbooloo mii de day mbooloo moo xam ne dañoo boole seeni pas-pas ngir dajoo gu ñu dajoo ci benn jumtuwaay ci jumtuwaay yi nga xam ne jumtuwaay yi xarala yi ngir di fa liggéeyal borom Tuubaa waaye di fa jëfal maam Cheikh Ibrahima Fall muy lu tudd Club House. Club House nag ab application la boo xam ne muy jumtuwaay goo xam ne la taxoon ñu koy def daanaka liggéey bii ñu fa samp sax taxu ko woon a jug waaye sant guñ sant Sëñ Tuubaa ci wa ansila nafam makaana durri wa ansilal xayra makaana sarri loolee tax ñu ñu jàpp ne bërëb buñ yëkkati bu mu mën a doon mënees na faa liggéeyal borom Tuubaa ca lañ fa daal di sosee lu ñuy wax talaatay maam Cheikh Ibra di ko fa waxtaane ak di ko fa dundee ak di ko fa dundalee ngir mën a yokk sunuy pas-pas loolee tamit yóbbu ci ñii ne talaata bu jot nañ ko fay waxtaanee waaye ci kaw waxtaane gi xam nañ ne maam Cheikh Ibra képp ku ko tudd baa nga wax ko danga nga wax addiya da nga wax liggéeyal borom Tuubaa ca lañ tax njaboot gi nga xam ne bokk nañ ci ànd ci liggéey boobu yëpp ñu maasee ndoone kon nañu leen ànd di jëfal maam Cheikh Ibrahima Fall ce loolee nag lañ tëkkoo ne dañuy fexe liggéey bii nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall borom Touba santoon nag ko te Serigne Cheikh jëm bu toog fi ab toogaayam tey muy ndogu yi ñu fexe ba suñu jëf moom teel faa dem moo tax ñu waajoon addiye joo xam ne dañ koo waajoon ngir ndogu yi waaye ca kaw loolee ñu dégg liggéey bii nga xam ne yaa ngi koy amal fii ci diiwaan gi muy foo xam ne dañ fi yeesale dañ ciy yeesale li nga xam ne moo mooy bërëb bi ñuy toggee ndogu yi loolee taxoon taalibe yi tamit jaayantewaat ab ciment daat koy indi looloo waral dikk gi tey faal nag ñu ànd kook njabo ñenn ci njabootu Sëñ Tuubaa gi waaye ko ànd koog ñenn ci sa njaboot mën nañ caa tudd ku mel ne Baye Manel Fall moom Serigne Saliou Fall moom Serigne mu Moustapha Fall waaye tamit ànd kook njabootu borom Tuubaa gi ku mel ne Serigne Abdou Khoudous Mbacke moom Serigne Modou Kara ànd ko Serigne Mahfous Mbacke moom Serigne Ahmadou Makhtar moom maam aw Awa la kon ñooñee ñëpp ak sëñ Khalil Mbacke ñëpp Mbacke Mbacke yu bari ñoo ngi ci biir liggéey bi waaye ànd ko mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañ àndal genn pas-pas rek la ñu am faal te bëgg ko muy eh, eh, eh, wut te gëm nañ ne wut moom kër maam Cheikh Ibrahima Fall la gën a sakkane moo tax nu nu boole sunuy pas-pas yëpp andil la ko Mbacke Fall nag danoo mënut bëgg ko nu mënal danoo xamut bëgg ku nu xamal danoo amul kàttan bëgg ku nu kàttanal ay ndaw lañ nag am na ci ñu toll ci buntub wut am na ci ñu toll ci buntub am te bëgg a bari le am na ñuy toll ci buntub jàng te bëgg a eh, am ca am ca lu kawe seen i njort faal noo ngi boole yitte yooyu yëpp di ko teg ci sa kanam yaa nu gën a xam di ci sunu biir yaa nu gën a xam di ci nekk sunuy xol noo ngi dagaan ñaan ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall nga nga nga ñaanal mbokk taalibe yëpp ànd giinu ànd te Sëñ Tuubaa rekk tax di dajale addiya te mësunoo gisante nga ñaanal nu loole lépp di liggéey di liggéey bu borom Tuubaa nangu waaye ji ci daraje maam Cheikh Ibrahima Fall ne indi woon nañ ko mu toll ci ñaar fukki gàtt ak wennoo nag ak addiyey ciment ji nga xam ne waxoon nañ ko muy juróomi tonni ciment ginnaaw kàddu yi nga xam ne leeral nañ ko xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb fal bég na lool ci taxawaay bi Pastef gi ak yite gi nga xam ne murid yi def nañ ko ba taxawal kuréel gile. waaw sëriñ bi mi ngi leen di nuyu tey gën a doole di leen ñaanal di leen wax ne leen sànq bi mu may wax daf may wax ne ma leen kàddu yi euh, ndax sëriñ Omar mii sax moom mooy jottalikatu kàddu yi moom mooy loxol sëriñ bi moom mooy mooy baatam waaye ndigal moom daa doon lu foor. comme moom wax na ma ne naa leen jottali kàddu yi di muy kàddu cant yi ak ngërëm yi ndax bi ñu duggee rek lañ ko leeral jëf ji nga xam ne moom ngeen jëf ju keroog ji yëg si woon na muy tonn ciment ba ñëg si woon ginnaaw bi ngeen jaayante indi juróomi ton def ak ñaar fukki gàtt yoo xam ne daa jëm ci koor gi aku nag ak seen jëmmi bopp yi loolu nag na ngeen rafet njort bu baax a baax xam ne euh, ku ñu nar a fay ku ne da nga xam ne danañ la liggéeyloo na ngeen gën a góorgóorlu ndax sëriñ bi moom képp ku mu jël ba dugal ci sa biir ci biiram rek na nga xam ne am nga tawféex ndax moom sotti na ba noppi ni mu ko bëggee mën na ko amee noonu ñun ñi mun ñun ñun ñi mënut amuñu amuñu fenn foo xam ne mën nañ faa jëm furul ci sëriñ bi bu ñu sëñ bi dimbalee ba dugal suñu biir ñu mën a jëf nan gën a rafet njort te gën a takku laxasaay bu baax a baax waaye sëriñ bi mu ngi leen di ñaanal ànd bi gën a yàgg mu ngi leen di ñaanal ba li ngeen yéene ak ni ngeen ko bëggee suñu borom defal leen ko noonu na ngeen rafet njort nag ba ngeen ñëwee ci kër Cheikh Rafal xam ne jëf rek moo fi maye dara ngeen jëf fi bu boobaa na ngeen xam ne ni ngeen ko bëgg Cheikh Rafal dana leen ko defal noonu nee na jaa ngeen jëfati. ngeen tàllal loxo yi sëriñ bi ñaanal leen. ginnaaw bu leen sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa général de Baye Fall ñaanalee ca lañ fa bàyyeekoo daal di ñëw fii ci Touba ci xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou fekk ko fii nga xam ne moo di ci Daarul Minan moom it daal di koy ziyaara leeral ko kuréel gi nga xam ne moom lañ taxawal ak li nga xam ne moom moo ko taxa jóg jébbalaale ko seen àddiya mu jëm ci complex Cheikh Ahmadul Khadim bi muy université bi nga xam ne moom la sëriñ bi di liggéey ci Touba. xarala nañ lool ci jumtukaayu ci ay jotaayu murid yoo xam ne far dañ koy fay faral di def laa ci laabirante jàppalante ci liggéeyal sëñ Touba ñëpp nekk ci ñëpp doon ay taalibe sëñ Touba xëy na ñoom ñëpp xëy na amuñu jàppale kenn ku ci nekk foo mën a dugal sa addiya waaye loola doon na jumtukaay boo xam ne dañoo jëfandikoo rek la yonent bi lu baax ak jullite ko moom ko fekk na ko jëfandikoo hmm. loola lañ jëfandikoo rek ba ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñoom it amoon nañ yéene tàmbale tàmbale ab barkeelu boo xam ne dañ ko fas def ci sa liggéey bi nga xam ne moom nga naan la Sëriñ Tuubaa dañu fas yéene ko ànd ak yow tey ñaan yàlla kër gi ak jàmm nag xëy na ab tàmbale rek la te it xëy na nosu gi des na waaye moo taxoon ñu ne woon daal ngir liggéey bi barkeel ak it sëriñ bi nangu ko nañ tàmbalee nañ tàmbalee ci joxe addiya loolu rek moo ñu yëkkati di sàkku yi nga ñaanal ñu ci mu doon loo xam ne mbir mu sëriñ bi lay doon doon di sàkku yi ñu doon boo xam ne xëy na moom ñu bi ci jumtukaay yi lañ ko defee ndax dajale ab lim boo xam ne dañ ñëwoon nañ ko indi tey tàmbalee ko mu doon ab tàmbale ci liggéeyu sëriñ bi Sëriñ ndaxa Mbacké Bachir bég na lool ci li nga xam ne moom lañ ko leeral ak taxawaayu kuréel gi nga xam ne moom lañ dëppee woon club house sëriñ bi nag jox leen tur wu yees tuddee leen Abraar te xamal leen ne am na ci ñoom yaakaar. sëriñ bi mu ne xolam seet na buy waaye xelam it dal na. alhamdulilah. daayiratul abraar. daayiratul. daayiratul abraar. daayiratul abraar. incha allah daayiratul abraar. incha allah incha allah incha allah. jërëjëf Mbaye sëriñ bi ne joo xam ne. féete fee ca Ndakaaru. di royukaay ànd ak ndaw ñi. jaar leen ci yoonu jub rek ak sëriñ bi. loolu rek la nekk Mbacke ñu la koy séeréer ñu xam ko baax a baax. alhamdulilah kon nag sëriñ bi nee na ba leen góor nee na mi ngi leen ñaanal yaa ngi mbooloo mi àndal mépp suñu borom dimbali ñu ba dajeeg tawfeex sëriñ seen lépp ginnaaw ziar bi nag ñoom jëwriñ yi nga xam ne ñoo ko ci kuréel gi am na ñu mbegte lool lépp bàyyeekoo ci kàddu yi nga xamante ni moom la sëriñ bi yëkkati jëmee ko ci seen mbooloo mi le gannaaw bañ jógee kër sëriñ Cheikh Jëmm Fall ba jébbal ko liggéey bi nga xamante ne moom lañu doon def ngir Cheikh Ibra Fall ndax ku ne jëf rek tudd Cheikh Ibra biñ pare foofu ñëw nañ fii ci kër sëñ mun Mountakha ziar nañ ko moom sëriñ bi sant na nee na yëg na ko bu baax a baax a baax a baax gannaaw bañ ko leeralee liggéey bi sant na ci bu baax a baax a baax te jox na jëmmi daara ji ab tur muy daayiratul abraar abraar nag ku ne xam na ne ku jàng alxuraan da nga dégg suñu borom mu ne innal abraar la fi naimin kon gaa yi mooy gaa yu mbaax ñi rek te te innal abraar la fi naimin kon kon texe nañ kon nañ ko xamee noonu kaddu yi yaakaar naa jaru muy gën a sori ndax ñun ñu fi nekk ñëpp tey jii ak ña nekk euh, fële ñett ñu nekk bi ci biir réew mi amoon yéene teew ak bitim réew yëpp ñun ñun seen ñun ñoom lañ fi teewal kon te fi mu ne yëg nañ Serigne Touba bu baax a baax a baax ci kaddu Serigne Serigne Mountakha yi nii waaw yëg na ko yëg na jàpp na daara ji nañ gën taqaat suñu suñu ndigg gën a liggéeyal Serigne Touba rajim bismillahi rahmaani rahim euh, ñu ngi santaat mbokk taalibe yëpp euh, ñi nga xamante ne euh, Salaw tey liggéey bi bu àggee fii ñoom képp ñoo tax ndax ay ndaw yoo xamante ne bokk ñu dëkk wu ñu ne tase ci maanaam jumtuwaay jumtuwaay xarala yoo xamante ne Salaw ba ko tubaab bi defar sax maanaam xamutoon ni murit yi dinañ ci mën a taxawal lu ni mel ñu dem ba maanaam ku ci ne di ci fësal sa yéene ba tey jii ñu ñu mun a jëf jëf ji nga xamante ne rëy na suñu bët waaye itam euh, daanaka xeeb nañ ko lool ndax xam nañ ni sëriñ bi moom mu ne su fee def lenn ba naw ko kon ñu ngi ñu ngi santaat sëriñ Tuubaa ci fàttali mbooloo mi nga xam ne moom lañ sosoon ñu dëppee ko club house bañ ko doo rek léegi daanaka ci weer rek lay tollu jublu gi lenn rek la muy liggéeyal Serigne tubaa te liggéey boobu su weesoo àddiya ji nga xam ne moom lañ ciy dajale dañuy taxawu mbokk taalibe yi cim njàng ay waxtaan ak képp koo xamante ni am na loo bëgga xam ci sa diine ñu la ci taxawu